Real 24 TV président Ousmane Sonko génn na ba saafanteeg am di yi oh ñii ngay xam lu daw yaram ngay saan mi ngi ak première vidéo Ousmane Sonko ni ki tey jii tombé ak euh, vendredi 15 euh, mars 2024 mi ngi ak foofee ca fi nga xamante ne rek moom mooy hôtel bi nga xamee ne fi la président Ousmane Sonko dal ni ki tey jii yéen a gis euh, mbokk yi ñi ngi ak gars yi ñi ngi rek tàggoo ak seen sago ngir cofeel gi nga xamee ne rek am nañ ko ci président Ousmane Sonko ni ki tey mu doon image yoo xamee ne xool yu bari rek daal di nay tooy ginnaaw bañ ko gëj a gis ay weeri weer yoo xam ne ma nga woon ca prison bu Cap Manuel tey ji Ousmane Sonko mi ngoo ko mu mel ne ñëpp daal dinañuy kontaan